asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat jàmm fii ci bu Equivox TV la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste et vrai ñu dooree ak yéen ci li ngeen xamante ni rek moom mooy actualité euh, people bi dans Vox People ñu dooree ak ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Binta Diallo moom Binta Diallo nag di journaliste foofu nga xamante ni rek moom mooy euh, TFM moom nag gëjoon nañ ko gis lool ci li nga xamante ni rek moom mooy ci télé ba li ko waral nag du lenn lu dul rek moom Binta Diallo dañ ko dugaloon fi nga xam ne rek moom mooy frigo maanaam mettre ko au frigo noonu la ko daal di xamle ci émission bi nga xamante ni rek. mi ngi ko doon uh, def ca Sénégal 7 uh, nee na nag di ko waral du lenn lu rek Ousmane Sonko ginnaaw rek moom Ousmane Sonko. biñ fi waxee woon nañu euh, génn maanaam def li nga xamante ni rek moom mooy concert des casseroles solo rouge ya ci la génne na Ousmane Sonko dafa bëgg a reylu li nga xam ne rek moom mooy doomu jàmbur yi ndaxte lu xonkam lool mu sol du lenn rek lu dul ay euh, sacrifice lu mel nag depuis ba ko waxee ci la ko Bouba Ndour ne ko nag euh, dafa am lu ñuy lijjanti nga toog boobaak léegi moom gisuñu ko benn yoon ci li nga xamante ni rek écran yu TFM yi la ko daal ci xamle maanaam bépp émission bi nga xamante ni rek min ngi ko na def ca boobule euh, télé dañ ko tegee nale waxuñu ko wow na waxuñu ko tooy na moom nag jàpp na ni Ousmane Sonko moo tax ñu daal di koy def euh, frigo moom nag yàq na lu mel ni xamee ki nga xamante ni moom mooy euh, Bouba Ndour ci émission bi nga xamante ni mujj na ko def ndaxte rek nee na Bouba Ndour dafa yebal nit daal di koy wax ni ko rek na dem toog euh, xaar ginnaaw loolu na daal dinay woo ki nga xamante ni rek moom mooy Youssou Ndour mais Youssou Ndour lu ko ci tegal moom mooy moom yoonam nekkul ci seen affaire euh, rédaction en tout cas daal euh, moom Binta jàlloo ratewul benn yoon ki nga xam ne rek moom mooy Bouba ndaxte nee en tant que ki nga xamante ni rek moom mooy directeur des programme bu future média moom day toog ci jàkkaarloo di wone carrément appartenance politique di wax lu ko neex di ànd ak ki nga xamante xamante ni moom mooy Ousmane Sonko te dara fekk ko ci moom mu génn joxe li nga xamante ni moom mooy xalaatam ci réew mi ñu daal di koy euh, mettre au frigo. yàq na lu mel ni xamee ki nga xam ni moom mooy bubandoo ndakate nag Binta jàll mi ngi doon laajte boobaak léegi fu mu ne fu mu ne moom itam dañ ko dugal ci euh, four bi ñu ñëwaat ci beneen actualité euh, people ki nga xamante ni rek moom mooy Ndeye Fatou Tine euh, Titi moom Titi nag ginnaaw rek émission bi nga xamante ni tam mujj na ko euh, def moom Titi nag daal di nay ñëw ci lu baree bari ci li nga xamante ni rek loolu lay waajal ci décembre bi waaye nag ba animatrice bi laajee ñu bëri ñu ngi wax naan mënoo digérer ki nga xamante ni rek moom mooy Viviane moom Titi nag elle a été catégorique lim ci wax moom mooy je n'ai peur de personne mënoon na def commerce star américain yi mais euh, defu ko maanaam wax lu ko neex lu ko neexul euh, du ko wax mais moom euh, maanaam lijjantiwul kenn mu ngi focaliser wu ci boppam focaliser wul ci personne maanaam yaakaar naa ni nag wax boobu leer na moom titi nag li mu wax daal moom mooy sóoraalewul kenn loolu daal la tontu ci li nga xamante ni rek moom mooy boobule question ñu ñëw aussi ci ki nga xamante ni moom mooy Queen Biz moom Queen Biz nag di candidate à l' élection présidentielle de deux mille vingt quatre ginnaaw bi mu retiré ay fiche de parrainage am ba noppi démb daal la ñu gis ci page Facebook am moom Queen Biz daal di annoncé li nga xamante ni rek moom mooy takk nañ ko alhamdulilah la daal di ci bind sol ay yëre yu weex tàll toog ci digg lalam moom Queen Biz daal mu mel ni euh, koo xamante ni day annoncé li nga xamante rek euh, moom mooy mariage am ñu bari nag ñu ngi critiqué ñu ngi naan euh, clip lay tourné ñeneen ñi naan leneen la waaye daal selon les informations yi nga xamante ni jot nañ ko ñu ngi dégg ñu naan may nañ ko deux millions ak li nga xamante ni rek moom mooy 4-4 waaye daal lu ci mënta am takk nañ ko wala takku takkuñu ko dinañu fexe ressourcé wu xool ba xam rek yooyu la image mu post te clip lay waajal wala réellement moom Queen Biz dégg na li nga xamante ni moom mooy alxayri ñu ñëw ci beneen actualité euh, people li nga xamante ni rek moom moo ñeel Wally Seck njàpp ginnaaw bi mu ñëwee ci chaîne am daal di fay yéeg ñaan ko li nga xamante ni rek moom mooy euh, oto Wally Seck nag ci biir ay wax nee na ko man ak sa euh, yow ak sa patron yëpp man maay seen baay jur na polémique ba Sidy Diop itam wax ji daal di koy neex loolu génn na daal di koy tontu à sa manière nee na nag moom du fiisu kenn benn baay la am muy Omar Diop moom moo ko tudd moom moo ko mooy baayam yaakaar naa léegi rek mi ngi bari ci côté boobu noonu euh, gis nañ aussi tam benn entretien boo xamante ni mi ngi amee people 221 di père euh, Ndaw moom tamit fekki ay début lool ki nga xam ni moom mooy euh, Sidi Diop yéy na yàbbi ci li nga xamante ni rek moom mooy wax bi bu ñu sukkandikoo nag ci li nga xamante ni rek noonu la ko kawteef bindee moom mooy la père de Sidi Diop daal dinay tontu ki nga xamante ni rek moom mooy Wally Ballago sekk ci kàddu boobu nga xamante ni rek yëkkati na ko moom nag selon nga xamante rek noonu la wax waxee moom mooy Père Ndao daal du rafet benn yoon euh, euh, maanaam acte bi nga xamante ni rek moom njàpp def na ko maanaam dem bi nga xamante ni dem na ko ci seen Wally Seck di ko ñaan oto nee na bu ko waxtaanee woon ñoom ci seen bi amaana euh, dinañ ko fajal li nga xamante ni rek moom mooy soxlaam jàpp na ni daal njàpp acte boobu mu def waru ko ndaxte rek lu ni mel dafa nekk loo xamante ni dafa ñaaw loolu dam ko ñaanee day mel ni rek moom fa mu nekk luñ ko benn njëriñ waaye ñëw na tam ci Wally nee na nag bu xaymaa ay atu Wally Seck xayma ay atu ki nga xam ni moom mooy Sidi Diop matu ko bàyyi waaye nag tontu bi nga xamante ni moom Sidi Diop daal dina koy tontu Wally Seck ba mu ko gisee dafa sedd lool li nga xamante ni moom mooy xolam ndaxte nag doom day sagal li nga xamante ni rek moom mooy waajur yi waaye daa rafetluwul benn yoon maanaam clash yi nga xamante ni mi ngi am ci seen diggante ndaxte jàpp na ne rek du ñoom du ñoom ñooy njëkkee musique bi waaye nag du ñoom ñooy mujjee li nga xamante ni rek moom mooy musique bi waaye daal rafetluwul li njàpp def rafetluwul tamit li nga xamante ni Wally Ballago Seck euh, def na ko waaye nag euh, appuye na ki nga xamante ni moom mooy euh, Sidi Diop ci tontu bi nga xamante ni tontu na ko Wally Seck ne ko duma fiisu kenn ñu ñëw ci beneen actualité euh, people euh, bu concerné ki nga xamante ni rek moom mooy Gris Bordeaux euh, du mbaru Fass bi nga xam ne kenn doot ko présenté Sénégal moom nag la ñu accusé de vol fële ca France jur na nag ay polémique à travers les réseaux sociaux mais ki nga xamante ni rek moom mooy plaignante bi nga xamante ni moo wax boobu lee mbir persiste na ba brandir ay preuve am ni rek moom Gris Bordeaux def ko sàcc lu tollook mille euros ci ay parfum de luxe yaakaar naa ko woon waaye ginnaaw live bi nga xamante ni gis nañ ko à travers euh, TikTok gis nañ moom Gris fi nga xamante ni rek mu ngi wax ak ki nga xamante ni rek moom mooy euh, femme bi di ko jéggalu di ko baalu li nga xamante ni rek moom mooy euh, àq mu mel ni rek Gris Bordeaux bu nu sukkandikoo ci li nga xamante ni rek moom mooy boobule vidéo maanaam daal li nga xamante ni femme bi mi ngi ko koy jiin moom moo ko ko def parce que ñu ngi déggu daal ci biir euh, vidéo bi moom Gris Bordeaux di ko jéggalu di ko ñaan daal mu bàyyi wax ji mu sedd moom Gris Bordeaux daal euh, jamono ji daal ñu ngi koy jaabaa jëlee li nga xamante ni rek moom mooy ci euh, réseaux sociaux yi ci vol boobu nga xamante ni rek mu ngi amee fële ca Paris ci mille euro yoo xamante ni rek ay parfum la de classe yu mu sàccal benn femme boo xamante ni rek moom moo ko héberger waaye daal moom Gris Bordeaux daal mu ngi jéggalu bu baax baax femme bi à travers na li nga xamante ni femme bi mi ngi ko génnee

erreur nit erreur lu mën a def nit nit la rek je comprends nga. waaw mais c'est lâche. waaw ah, ah, parce que man je le mérite je gis lu may lu may daj parfum yi wutuma ci xaalis. tapis Oumy ah. Saké. il y a Valentino il manque des parfums si Guédé je montrer tout de suite la vidéo ici y avait un une parfum hier rek mu ngi fi woon. Valentino bi nekk fi. Flower Bomb bi nekk fi. léegi ay parfums yi léegi billahi wallahi tallahi barki cinq cinq sur le cinq ans billahi wallahi tallahi parfois yi laa jël billahi wallahi non non non non mënut a nekk donc yeneen parfum kan moo. bagage yi démb barki démb rek am na photo boo xam